waaw asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki Aduna. maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax di leen baalu àq di leen baalu àq di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm ba balaa ñuy génn ci weeru koor gi corona bi jeex ndax dëgg-dëgg ñett yi sonal nañu muy ñetti see yi coronavirus bi couvre-feu bi ak koor gi ndax koor mënut a ànd ak ñaar yi nii coronavirus ak euh, couvre-feu mënuñoo ànd parce que dégg maam da ngay ndogu war a génn doxantu li nga lekk wàcc waaye doo ko ngay ndogu tëdd reer tëdd xëdd tëdd métti na trop ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla jeexal di ñëw tey ci suñu vidéo bi ci mbiru wax li nga xam ne état daf koy dimbalee askanam bi ci jiitu mooy courant bi ak ndox bi dañu waxoon nañu kenn ku nekk ci sénégalais yi danañ la dimbalee lu tolloog vingt cinq mille francs ci courant bi waaye lu tolloog vingt mètres képp ci ndox mi mu tolloog ay quatre mille francs yaakaar na mais ñun bi ñu demee. pour dem laajte loolu ci Senelec li ñu xamal mooy que ne boo xasee passé vingt cinq mille duñ la fayal benn dërëm ndox mi tim boo xasee passé vingt mètres bi duñ la fasal fayal benn dërëm te ñun li ñu déggoon ci ministre bi mu wax ko te leerul mooy que ne ñun boo amee ba vingt cinq mille su ko ëppee la ca tegu yaa koy fayal sa bopp mais li des état moo la koy fayal ndox mi même chose te yaakaar naa loolu la waroon demee parce que xaalis bi ñuy séddale wala di ko joxe xaalisu askanu Sénégal amna lo xamne état bi ko guéné mi amna lo xamne ay sénégalais ñoko dajale joxe ko ay bonne volonté amna ci ay kilifa diine amna ay kilifa aada amna ay commerçants amna ay transporteurs amna ku nekk ko xamne yëkëti yëkkati na dërëmam joxe ko ci loolu nonu état diko dimbalé waat askan wi kon loolu dafa wara a delluwaat ci askan wi yëpp mais buñ ne ki gëna a yomb la rek lañ mëna dimbale kenen ki ci ki ki ki ëppale 25000 dootuñ ko dimbale benn dërëm loolu injustice da fay am li tax moy nit mëna nekk ci kër amé fa ay ndongo dara kër surtout kër sëriñ si xam kër gi dafay mag borom kër gi amul xaalis du fonctionnaire fayeekuwul benn weer waaye mu ngi yore ay doom ay doomi jàmbur yu ko dénk mu yor leen ci kër gi ñuy utiliser ndox di utiliser courant kooku facture am day ëpp vingt ndoxam day ëpp loolu mais kooku boo ko dimbalewul dara kon dimbalewoo kenn am na koo fonctionnaire la mais taalul clim taalul ventilo taalul dara moom noonu la ko bëggee du utiliser lu mat cinq mille ndox te fonctionnaire la dimbale nga kooku te dimbale woo keneen nga xam du fonctionnaire kon loolu nañ ko corriger corriger nañ ko corriger parce que paaseegul nañ fexe ñu dimbale askan wi ñi nga xam ne yëpp sénégalais lañ te ñu mun leen dimbale ci loolu nañ leen ci dimbale. beneen ndimbal bi mooy mbiru euh, dund gi biñ ko jëndee léegi daanaka léegi mu def daanaka weer biñ defee appel d'offre yeeg léegi moo jege weer. waxoon nañ ne dañuy oo dañuy monter benn comité de pilotage boo xam ne euh, benn général koy jiite pour wàllu séddale mi ah, ñun gis nañ ne commencé nañ séddale te comité bi réunion guñ parce que nee nañ comité bi tey jii ci alxames bi lañ war a réunion beneen bi mooy opposant yi nga xam ne mag Sall mu ngi leen doon oo di leen recevoir palais di waxtaan ak ñoom ci problème mu feebar bi nu koy xeexee lan lañ leen doyee ndax ba léegi ñun gisaguñ ñooñu lan lañ def ci ci comité bi wala lan lañ leen responsabiliser ci comité bi pour ñu jàpp ci xeex bi gisaguñ ko beneen bi mooy beneen injustice bi mooy. dañoo may opportunité ñi nga xamante ne nii dañuy yëngu ci wàllu ñu mën di def lu leen neex di tàncaloo di def lu leen neex moo xam marché yi la moo xam banque la moo xam fuur la marché bi yang fay def minimum 4 heures de temps 5 heures de temps bu kaw la 14 heures la ñuy wàcc mais mun nañ xëy bu leen neexee 6 heures du matin ba 4 heures ba euh, ba ba 14 heures banque yi même chose boulanger yi même chose mais jàkka ñu ne leen tëj leen jàkka yi tëj tax ñu pour nangu dégg jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa pour bëgg a jàpp ci xeex bi waaye état bi sëriñ si di jàppale ak imaam yi état comprendre loolu parce que boo seeloo jumaa yi su dul ajjuma ak nekkul heure naafi la jumaa yi mënul weesu téeméeri nit jumaa yi gën a mag du weesu téeméeri nit yu fay julli te banques yi la fay ëpp na téeméeri nit léegi nag lan moo tee état bu Sénégal wax jàkk yi ne leen mën ngeen a julli ak maximum vingt personnes bu ko defee waa jàkka ji ñoom ñu organiser wu seen biir ñu xool nu ñuy fexe ñoom bay julli te duñ am benn problème parce que liñ may banque yi mun nañ ko may mun nañ ko may nu mu tuddati mun nañ ko may jumaa yi mun nañ ko may jumaa yi parce que soo seetloo ñu ngi wax kaaw corona Kaolack deux deux cas yi am Kaolack yëpp ci ay banque lañ nekk kon banques yi ñoo gën a dangereux te banques ñu ngi leen bàyyi ñu ngi ubbi ba pour pourquoi pas jàkka yi ñu jumaa yi ak jàkka yi ñu bàyyi leen ñu ñu ubbi loolu injustice la te lu ñu war a corriger la président de la république le trois wala le 4 booy waxaat parce que couvre-feu bi dafay jeex le trois wala le 4 bu jeexaatee booy waxaat fexeel ba autoriser jàkka yeeg jumaa yi ñu mun di def seen farata yi ak seen julli jumaa yi ngeen wax leen ñu organiser ko ñoom ci seen méthode. parce que ñoom tamit comme joxe nañ seen kàddu duñ bëgg delluwaat ginnaaw ci loolu parce que ñoom ñoo wax ba pare duñ ko changer mais yéen comme yéen a ngi may ay nit ñuy dajaloo ci banque yi ci marché yi.

ba ca suba gi ñu bàyyiwaat leen soluñ masque ñoom ñëpp ba léegi kenn solul masque lan moo tax lu xew kon nag suñ kilifa diine yi tim dafay baax ñoom itam ñu wax Macky Sall ne ko dañoo bëgg julli ci suñuy jumaa comme ñi ko ñeneen ñi di defee di di def plateau ci seen i télé di def euh, transfert d'argent ci seen i banque ak seen i seen i nangam nangam nangam beneen bi ñu ngi wax ne. Euh, ñiy dugg ci ñuy jugee ci raison dem ci raison ay jakarta ñoo leen di indi d'accord dëgg la jakarta ci lañ bokk waaye homme de tenue yi ci lañ bokk am na ay homme de yuy jàllale ay nit di leen jëlee raison ba raison am na ay euh, agent de santé muy euh, ñi nga xam ne ñoo yore yi di di transporter ay nit di leen jëlee raison ba am na tim ay autorités yoo xam ne nii maanaam du nu du du nu takk der du nu agent de santé soit député lañ soit ancien ministre lañ soit ministre conseil lañ wala loo xam ne njege nañ nguur ñu may leen ay autorisation ñu ngi jàlle ay nit di leen yóbbu ci raison yi lijjanti leen loolu takk der yi nekk ci kaw tali bi nañuy def contrôle yooyu buñ gisee autorité buy dem di yóbbaale nit ñu xam ne kii ki muy yóbbaale nii du du kenn ci moom nañ ko wàccee oto bi mais léegi daal ñoom baadu ñoom ñoom buur yi nañ nekk ci lu leen neex ñun baadoo lay ñu tëj ñu di ñu noot di ñu def lu leen neex man d'accord ma ci loolu beneen beneen waaw beneen aspect bi ma bëggoon wax mooy par rapport ak séddale dund gi yi ñu war a def il paraît que ñu ngi recensé ci kër yi waaye dañoo njëkk jël ñi nga xam ne mooy waa si familiale yi te donte waxoon nañ bourse familiale li ci ëpp ay politiciens lañ du ma si dellusiwaat waaye am na ñoo xam ne euh, ñu ngi ci koñ. nga yaakaar ne ay borom barke lañ am na luñ dundee fekk amuñu ko jamono yi kuraan liggéey sax dafa am problème waxuma laa ko xam ne liggéeyutoon kon bu ñuy séddalee nañ maasale ñëpp jarul ñuy tëb benn nit ndimbal ndimbal la te xaalis bi ñun ñëpp ko bokk ay sénégalais lañ képp koo xam ne yaa ngi fay facture ndox wala facture courant wala ngay fay impôt wala nga am benn entreprise buy dox dara xaalis boobu yow ci nga bokk bu ñuy séddale buñ la jéggi fi may mujjee nag mooy. politiciens yi nga xamné ñoo nek Kaolack politiciens yi Kaolack ah jamono ji du jamono campagne de motax population bi gisuñ leen de population bi gisuñ leen de te bu doon jamono campagne seen auto yi di darti darti win win gudul jeex di tankal nit ñi di leen sonal ee eh leen deux heures du matin quatre heures du matin nan dang nga leen la soxla billahi wallahi soxla bi heure bi ñom ñoo leen soxla seen nimbal gi ngeen jël diko yobbu gouvernance pour bëgg maak président Macky Sall ne yéen ñii kat joxe ngeen seen ndimbal kenn ku nekk ñi nga dëkkal dimbale leen ñi am alal jënd ko bagage di ko yóbbu gouvernance yéen ñi ngeen dëkkal dimbale leen directement kenn ku nekk boo dimbalee ñi nga dëkkat billaay wallaay talaay daanaka ñi ñi ñi ñi ñi am ñun ñun ñii ñàkk du bari parce que kenn ku nekk ci quartier bi nga dëkk am na lum néew ne fukki nit ñoo xam ne yaa leen dimbale te mën nga leen a dimbale yaa leen yaa leen ëpp ndimbal te mën nga leen a dimbale lan moo tax duñ dimbale ñooñu mais faaw ñu bëgg a wane wu dem gouvernance déposé ko wane ne man contribuer naa mais jàppaleel ñi nga dëkkat jàppaleel ñi nga dëkkat kenn ku ne quartier bi nga dëkk mun nga leen dimbale waaye man maa ngi xaar ba élection yi jege rek ba politiciens yi dugg suñ koñ